Modou saw maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si euh, maa ngi lay fay di nuyu di nuyu auditeurs yi ñuy déglu yëpp. Hmm, Modou nga nekk chargé de communication du regroupement des boulangers euh, du Sénégal bi ñu wàññee mburu mi ba léegi nee ngeen dafa am jafe-jafe yoo xam ne yéen a ngi koy jànkoonteel actuellement lan mooy jafe-jafe yi si yaatal. waaw effectivement ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, day baax aussi ñu fàttali situation bi Sénégal nekk ndax bërki démb boulanger Sénégal yëpp daje woon nañ Guédiawaye pour xool sunu secteur bi nekk la demee parce que ñun ñëpp déggandoo woon ngeen ni état du Sénégal dafay wàññi mburu mi euh, secrétaire général du gouvernement moom moo wax ni euh, kilo mburu bu nekk dina ci wàññi ñetti dërëm euh, mu dem ba ci digg bi au lieu que ñu calculer ñett dërëm yi mu xëyaat daal ni juróomi dërëm lañ ci wàññi daal di koy forcer meunier yi ko boulanger yi mu nekk vendredi altine ñu xëy appliqué prix comme ñun RBS eh, structure bu légal la te ñun ci réew mi leen bokk te lépp luy noppal Sénégal yi dañ ciy bokk ñu accepté parce que état bi dañu woon nan doxalee nii après ñu xool yan solution lay def. Mhm. mais il faut que yi xam ni bu fekkoon ni tey jii état bi dafa wàññi six mille neuf cent ci saagu farine bi mën na noo xam ni kat mburu kon mën naa wàññeeku juróomi dërëm. waaye malheureusement quatre mille francs la ñu wàññi ci saak bi loolu nag euh, forcing la boo xam ci état du Sénégal jël na ko teg ko suñu kaw ah ñu nangu nag parce que état nag euh, moom mooy responsabilité doxal mais boobaak léegi bind nañ lu mat fukki fan juróom suñu ministre du commerce pour wax ko situation bi fi mu toll mais ba léegi nii tontuwul te il faut nit ñi xam ni kenn mënta wax mburu te wax farine mais c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu annoncé wàññi mburu te kenn tuddul fariñ ñu ne ko waa sawaay yow yaa ngi waay wàññi mburu mi te tuddoo farine après nag ci la xool ni quatre mille francs ci wàññi mu doon loo xam si ñu xeeb nañ ko lool waaye mun na woon ko bañ ndax lu noppal sénégalais yi te il faut ñu xam lenn ni mburu produit yi dañ ko homologué maanaam kenn amul sañ-sañu jaay mburu lu la neexee ci marché bi léegi nag bi nu ko homologué état dafa war a lépp luy ànd ak mburu rek dafa war a ànd ak homologation bi ndax boo xoolee carton levure bi ñu doon liggéeyee ñun ko doon jënd ñaari junni tey jii may wax ak yow ñetti junni lay jaar ci marché bi saaku xorom bi nga xam ne sii dafa bokk sur production ñu ko doon jënde sept cent franc léegi ñu ngi koy jënde deux mille cinq cent franc noonu laa ko mën a toppe ci courant bi noonu laa ko mën a toppe ci ndox bi noonu laa ko toppe ci améliorant bi ba lépp lu mu doon jëfandikoo rek yokk na léegi nag li ñu seetlu ci ñaari weer yi ba ñetti yi mooy boulangerie ñu ngi tëj ñii ñu ngi wàññi seen euh, personnel te ñun mënuñu xëy xëy yokk nguur xalaatuñ ko sax ndax ay Sénégal la ci leen jël son te bind suñu ministre du tutelle Serigne Gueye Diop mais boobaak léegi yéeyu ci yàggu ci te comme que ñun leen waxante woon ak gouvernement bi defu ko day baax ñu leer askanu Sénégal gi ni kat wàññi bi état du Sénégal teg daf ko nu forcé mën ci dara waaye nag la waxante woon ak ñun wala la mu waral def ñun def ko lii moo tax ñu jóg yëkkati suñu kàddu pour alerter Sénégalais yi mais alerter gouvernement yi pour ñu gën a taxaw suñu situation. Mhm. si seen jafe-jafe aussi daan nañ dégg ngeen di wax si wàllum courant bi est-ce que ba léegi jafe yooyu mi ngi fii cherté bi sentir ngeen ko ak bi ñu supprimer troisième tranche bi waaw wala déet. waaw xam nga xam nga courant euh, il faut nit ñi xam lan moo lan la facturer courant boo xoolee guddi gi courant ci lay gën a cher. mais courant aussi dafa doon loo xee si loo loo gën di consommer rek sa facture di gën a bari te ñun ay boulanger leen entreprise dañu yor kon ñun guddi gi aussi nañ liggéey muy ñun ci heure bi facture courant gën a cher ci lañu liggéey te ñun yor na production bu ndaw moo tax ñun suñu facture courant naturellement mooy gën a cher mais boo seetloo tey ji man exemple bi ma lay jox man sama facture bii jàll cinq cent vingt mille francs te mosuma xalaat a fay loolu te euh, muy situation yoo xam ne si metti na lool lool lool lool mu ñëw ci ndox mi aussi ndox mi aussi cher na lool lool lool ñun boo xoolee bépp produit bu ñuy liggéeyee rek yokk la mm. ak chaque jour ñu ngi ci marché bi dina contrôler euh, dina fayloo ay taxes yoo xam si doo xam doo xam doo comprendre mm. te dama jàpp ni entreprise buy tëj wala bu nekk en faillite wala buy waaj a tëj wala buy waaj a sa wàññi personnel nga xëy chaque jour di ko teg ay taxes ak di ko teg lu mënul te yow li nga waxante woon moom defu ko. Hmm. loolu nag moo tax ñun en toute responsabilité ñu woo gouvernement Sénégal mu xoolaat mbir mi ndax li ñuy liggéeye cher na lool prix affaire yi yokk na lépp te ñun amuñu sañ-sañu yokk dara ndax li ñuy liggéeye dañ ko homologué état nag comme que dafa homologué li ñuy liggéeyee lépp produit bu ñu jënd mooy tam dafa war na bokk ci homologation bi muy les produits dérivés. Hmm. mais quand même yéen a ngi euh, fay seeni i ba léegi parce que maa ngi dégg nga naan euh, boo moytuwul euh, di ngeen bàyyi seen liggéeykat yu baree bëri. waa xam nga xam nga xam nga entreprise entreprise bu bu yokkul rek daa wàññi. Hmm. parce que bu fekkee da nga yor ay employés chaque année war ngaa mën a yokk sa marge de manœuvre wala war a yeesal wala def ay contrat te wax dëgg yàlla loolu lépp mënatuñ ko def daanaka da ngay débouré rek di di fay. salaire yi xam nga di jël ci farine bi fee jël ci gasoil fee daw dàqe daanaka mënutoo loolu ñu naan joindre les deux bouts mënutoo ko am moo tax ni nga xam ne si mooy ku yokkut rek da ngaa wàññi mais wax dëgg yàlla secteur boulanger du Sénégal actuellement mën na xam ne day deltu ginnaaw mais jëmu kanam te wax dëgg yàlla ñun at mu nekk dina dugal lu mat cent milliards ci contribuable Sénégal sénégalais bi te liy gën a doy waar mooy mburu mburu dafa yaatu ginnaaw ndax ma la boulangerie mais maire bi jaay ñebbe maire bi jaay euh, euh, petit pois wala et cetera na ma jaa jaawee ni comprendre euh, nan xam ni ñooñu ñëpp ci secteur bi leen bokk nga ñëw ci soleil bi même même journaliste yéen soleil bi ngeen defe sax ñu ñoo koy ñun ñoo koy jëlaat di ko di ko récupérer di ko di ko dugalaat ci marché bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen muy muy secteur bu yaatu ginnaaw mais gis nañ ni autorité Sénégal dafa ko ginnaaw ndax moo tax loolu mooy naka nga mën a xalaatee ministre bu nu fal yore nga yore commerce secteur bu bu bu bu doy waar boobaak léegi mënagoo sax am benn séance de travail avec les boulangers mu situation boo xam si dañ koy ñaawlu bu baax a baax ndax suñu ministre euh, de tutelle ban ko falee ba léegi amagul benn séance de travail avec les boulangers te wax dëgg yàlla secrétaire général aussi du gouvernement bi li mu annoncé Sénégalais yi ak li mu appliqué ci terrain yi bokkul. te li wax dama koy argumenté ndax boo xoolee déclaration du secrétaire général du gouvernement bi dafa annoncé woon ni ñetti dërëm la ñu wàññi ci mburu bi mais annonce bi mu ñëwaatee juróomi dërëm la wax na ci wàññi parce que loolu la ko premier ministre sant kon nag ñaar moo mën a am premier ministre amul information bi baax wala ñi nga xam ne si ñoo nekk ci terrain bi defaluñ ko euh, compte rendu fidèle loolu nag moo tax ñun ñu yëkkati suñu kàddu ngir mu déglu mu woonu ñu wax ko situation bi xam si moom la nekkee mu jël ci ay responsabilité parce que ñaanuñu yàlla ñu dem ba toog ci Sénégalais yi dina xañ li ñu xañ seen droit parce que ñu dañoo am droit jox leen mburu de qualité mais buñ sañoon aussi mburu bu mos a yokk parce que burul dara ay Sénégal lan ci njaboot bi la bokk avant ñu nekk ay producteurs aussi ay consommateurs la Euh, tey jii kon nag euh, est-ce que am ngeen ay piste de solution yi nga xam ni moom ngeen di proposer autorité étatique yi euh, ngir rek comme ni nga ko waxee seen entreprise yi bañ a aussi ngeen bañ a ñàkk seen i employés. waaw loolu moom gis nañ ko première yi ñu koy laaj mooy réglementation du secteur boo nee réglementation du secteur mooy ñu fexe ba mburu mi ñu koy jaay à la gramme mën na noo defar ay mburu yoo xam ne si. dañ koy peser ku bëgg kilo ni kilo ku bëgg libar ni libar bu fekkee mënu guloo àgg foofu wax dëgg yàlla mu wàññiwaat mburu farine njëgu farine bi saako bu nekk mu teg ci six mille neuf cent francs loolu lañ koy laaj beneen bi aussi mooy courant bi aussi mu dimbali ci wàññi factures yi ndax cher na lool mais ñu ngi koy ñaan aussi mu dimbali wàññi facture ndox yi beneen bi ñu koy laaj nag mooy ñoo ngi koy laaj mu protéger nu bu baax a baax a baax mais mu accompagner nu parce que boo gisee état bi teg na ay structures yoo xam ne si comme ay DER comme ay FONGIP te gisuma boulanger yi gis seen bopp euh, beneen bi ñu koy laaj nag mooy mu premier ministre wala gouvernement bi ñu wax ak seen ministre de commerce mu dalal boulanger yi ñu waxtaan ak ñoom ngeen ñu bañ a xañ Sénégal yi seen i loolu daal la ñuy laaj euh, Sénégal yi la ñuy laaj ci état du Sénégal mooy mu respecter secteur bi mooy mu trouver des solutions parce que ñun encore une fois dama koy fàttali ne ñun structure bi ñu yor structure bu responsable la mais structure bu républicaine la ñaanuñu yàlla dem bay xañ Sénégalais li moom li mu bëgg mooy di leen jox mburu saa suñu xëyee mais di leen jox mburu de qualité ànd ak leen les de d'hygiène parce que boo xoolee at yi boulanger yi ñu ngi def effort boo gisee boulanger yi ñu ngi moderniser wu parce que danoo nekk ay concurrents yoo xam ne ay étranger lan yu jógee étranger ñu commencé dugg ci filière bi léegi nag état du Sénégal moom mooy xool mu protéger ñun boulanger Sénégal yi góor góorgóorlu bàyyi suñu métier bàyyi suñu lu bari investi Sénégal wala bokk mu génn secteur bi bàyyi étranger téye secteur bi te boobaa Sénégal dañ xëy bëgg a jënd mburu parce que non seulement accessibilité bi dina poser problème mais aussi prix bi aussi dina poser problème ndax olof jaay nee na ki la abal ay bëtam moom fu ko neex rek ngay xool. Mm. est-ce que tey jii euh, déggoo ngeen ci mbir mi ak fédération des boulangers du Sénégal bi Amadou Gaye jiite. waaw effectivement loolu d'ailleurs koy nuyu baax a baax ndax moom yàgg na xeexal secteur bi euh, wax dëgg yàlla boo xoolee ñun ñaari secteur ñaari euh, kii rek lan entité muy la regroupement des boulangers du Sénégal te Bara Gassama jiite ko. ak la fédération nationale des boulangers Amadou Gaye jiite ko boo xoolee sax ñun assemblée générale barki démb euh, président Amadou Gaye dafa jàpp jàppoon mais yebal na le secretaire général muy Ndéna Ndiaye ñëw na fa def fa une communication parce que actuellement ñun ak FNBS ñoo bokk même combat ñoo bokk même gis-gis ñoo bokk même secteur donc nag jàpp naa ni ñoo bokk lépp lu ñu xeex te incha allah ci kanam lu ñuy def rek wala décision bu ñu mën a jël rek incha allah ñaari ante ñoo ko jëlandoo ensemble parce que on travaille en parfaite collaboration. Hmm. tey jii fu ñuy jeexalee Modou Sow am ngeen plan d' action waaw wala déet. waaw effectivement am nañu plan d' action bi njëkk mooy alerter def nañ ko barki démb yëglu wax sénégalais yi euh, xamal leen discours bi euh, bi am euh, wax leen lii li état bi def ak force mi nga xam ne si état du Sénégal def na ko ñaareel ba mooy aussi bind nañ lettre le bind na lettre euh, le premier ministre bind na lettre le président de la république pour que nu mu gën a gaawee mu toog euh, ak ak acteurs yi pour ñu mën a xool naka la ñu jubantee secteur bi bi ci des nag muy loo xam si kenn bëgg ko waaye bu demee ba amatul lu joxe nag wax dëgg yàlla ku dem ba amatuloo joxe nag li nga def mooy croiser les bras rek te ñaan yàlla ak ci situation bu mel noonu kon daal plan d'action bi dinañ ko dérouler mais li ci jut daal mooy gis ko ñoo ngi yëglu di wax état du Sénégal mu jël ay responsabilités am euh, invité les acteurs de la boulangerie pour que ñu mën a toog autour d'une table pour ñu trouver ay consensus. voilà merci beaucoup du Sow ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. merci beaucoup man maa leen war a jaajëfal bu baax a baax di leen masaw aussi di leen ñaanal di ñaan yàlla aussi jàmm am ci réew mi. Euh, màggal gi jëm ñu dem ci jàmm ak salaam yàlla defal jàmm te accident yi aussi mu doon loo xam si du du amati. loolu la ñaan Sénégal jërë ngeen jëf. ñuy fàttali ni du saw yow yaa chargé de communication du regroupement des boulangers du Sénégal jërëjëf. merci beaucoup merci beaucoup.